Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Amadou maam Diop, merci beaucoup ce dal ak sa encadrement. De remercier Monsieur le ministre de la Justice garde so Sceaux Ousmane Diagne euh, ci toogaay bu gudd nii depuis dix heures ça montrait que votre niveau d'être un homme d'État. di remercier ministre du travail bi nekk sa naa ko remercier mais xam naa ne tey remerciement su boobu léegi yëpp da doon nelaw rek na yeewu tuuti merci beaucoup euh, projet de loi bii tey pour supprimer au conseil des collectivités territoriales nga xam ne jigéen ju jaambaar jooju Aminata Mbengue Ndiaye nekk ci bopp bi conseil économique sociale environnemental le président Abdoulaye Daouda Diallo nekk ci bopp bi incha allahu rabbi man mii jibi faalil man mii ba samba mariam pend salieru sukum njigaan du duma ko voté fi ma koy teg xam naa parce que fii taxaw nii tey di assemblée nationale suñu indoon projet de loi bii s'il y avait une espérance politique énorme dafa am lu ñu ci waroon boole nuraloo ko tuuti xam nga balance warul demee benn côté rek bu ñu waxee ne du politique loolu kenn munu koo comprendre bu ñu jëlee di jël haut conseil des collectivités territoriale di multiplier quinze milliards fois cinq ans mu nekk soixante quinze milliards oui c'est beaucoup d'argent mais prenons les fonds politiques vingt trois milliards fois cinq ans c'est cent quinze milliards wala boog cent quinze milliards du xaalis bu ndaw loolu région li Macky Sall commencé ci réew mi yi région am hôpitaux yi région amuñu hôpitaux cent quinze milliards ci benn nit au moins les deux institutions ay sénégalais yi bëri ñoo fa nekk même si c'est des politiciens mais quand on parle d'un fonds politique loolu yaa la présidence kese moo ci tiim cent quinze milliards donc loolu lu ñu buñ ko ci boole woon rek man mii daal yéen ñii bennoo li ngeen mës a def su booba ngoon dinaa ànd ak yéen mais buñ ci boole woon fond politique ma voté wala boog mais buñ ci boole woon encore ma wax leen salaire yi nga xam ne waa FERA onze mois touche wuñu benn salaire nekk ay borom famille ma voté ko buñ ci boolewoon woon buñ ci boole woon les employés yi nga xam ne ne ta continuité la état continuité la xam ngeen ni fii ak ñetti at lépp lu ngeen unigré su booba ngoon Macky la ko defar Macky Sall ko defar wala quatre ans bokk employé yi nekkoon port sept cent personnes buñ ci boole woon seen solution jaral nañu ñooñu sax ñu voté ko suñ ci boole woon emploi yi ñu wàññi kudd direction fii université ma voté ko suñ ci boole woon emploi yi ñu wàññi lonage mu jaral ma ma taxaw ci seen wet woote ko suñ ci boole woon emploi yi doon liggéey cadre de vie jaral ma ma taxaw woote ko buñ ci boole woon emploi yi doon liggéey UCG jaral ma ma woote ko marchand ambulant yi fii am problème mun nañu leen amal solution waa jakartamaan yi ñu boole ci secteur informel mbooloo secteur informel xoolal aujourd'hui secteur informel benn commerçant doo ko gis mu yor mam jaar ci aéroport Dakar dem bitim réew di jëndi marchandise mënoo fi génne plus de cinq millions suñ ci boole woon nag loo xam ne ne demande sénégalais yëpp la opposition pouvoir mooy lan ceeb diwlin suukar café meew soble kaani poobar ma voté ko ak mburu yooyu yëpp buñ ci boole woon yooyu solution ma voté ko yooyu yëpp gisuma ci boobu solution ñu ko ci boole suñ ci boole woon wàññi électricité courant réew mi suñ ci booleel wàññi carburant réew mi ma voté ko mais uniquement rek au conseil conseil économique ñu dajale ko rek enterré ñoo lànk ñun ñoo lank te incha allahu rabi dinañu taxaw yëkkati loxo nuñ ko daan defee xam ngeen ko te tamit Cheikh Abdou Baara maa ngi maa ngi yóbbante Cheikh Coro commencé na am dunguru ndax moom ay carte lay joué moom ay carte lay joué c'est sûr que dina jaamu Cheikh Thioro ba bëgg bokk ci législative bii di ñëw looloo tax muy neexalaat nii rek du leneen xam ngeen Cheikh Abdou na la mel mais na ngeen moytu nag. kero la merci fu mu bokk rek élection du gagné loolu moom ngeen moytu ko. Dial Sané vous avez la parole suivie de Daba Wañan Merci, Monsieur le Président.